am naa si huit combats waaw six victoires benn défaite benn sans verdict. cinq combats quatre deux mille Koña Balla Diouf daal far naa de mais premier combat waaw si laa ñu ko waaw waaw xamul mbër quoi waaw. non mosuñu daje fenn mais mosu nañ daje benn bokk benn tournoi bu ne mais daje wu ñu quoi loolu mosu bëri waaw. naa mbër la bay mbër rek xamante ne bu baax comme nii rek dégg turam rek comme ni muy déggee sama tur laay déggee turam rek non non daje may bëre mu toog di seetaan. ah combat bi daal dama dégg saa yi pare combat waaw combat bi daal si ñoom la yàqu quoi xam naa stade Iba Mar bi loon daw quoi mais garaawul ba am ba am fekk Pikine ñu ragaluñ loolu. ah loolu lay ñaan ko mun bëre ko mun xeex bañ na ko ba Pape Diagne su may jox avance loolu laa ba xam kooku mun na bëre waaw su mun na bëre rek dama naan ko alhamdulilah. daw à domicile mu recevoir nga bañ quoi bàyyi ma ñëw sa stade. man ragaluma loolu waaw. blessé damb boo xam ñaari jours lañ wax blessé ma du un mois sax nga nga nga lii ko nga nga dindi damb lu xaw ma waaw ma dul un mois sax ñu ne wiraat na te dañ ne dafa damoon xaw ma loolu ma a jaaxal na quoi. maa ngi ci jégalu bu baax maa ngi jégalu nit ñi mais nekkul luñ tey nekkul wala dara la. loo xamante ni tayuñu ko la ndogal yàlla moo ñëw mu dal ñu mais maa ngi si masaw promoteur bu baax a baax a baax a baax di masaw samay supporter ak supporter bu ma ñu ndax combat bi yaakaar naa ni yàgg na trop war na def ay cinq mois suma juum waaw maa ngi si jégalu nit ñi bu bëree bëree bu baax a baax baax a baax mais ku xam Jacob Baldé xam na ni ay daw sax ñëwul sama yëf mhm. bañ a wóor dama ragal dara làmb ji bu nekkoon seen bundugar sax ma jël ko dam na yàgg nañ bëri mbapat ba ñu amee ay 15 ans 16 ans lañ dem si àll bi di bëri ay mbapat ay fatigué fu ne ñu ragaluñ ñu ko gën a tàng fi de laaj non la sax mais ñu ko gën a tàng laa wax ñoo fi de est-ce que yàlla baax na yàlla baax na ba ah yàlla baax na daal dañ bàyyi ba yàggatul mais est-ce que dina taxaw waaw si suuf moom laa koy laajte Mbagnick loolu rek laa koy ñaan ndax maak moom yaakaar naa ñoo war a bëri combat bu gën a neex si journée bi incha allahu rabbi bëgg naa maak moom ñu bëri ko bëgguma ñu nekk fii ay arrière daw ak yooyu noonu na ñëw suul tànk yi mu suul samay tànk waaw kenn laal ardo ñëwaat nañ bëggal gaal gars yi ba suñ jógee foofu ku nekk dina xam kii fii la war a nekk kii fii la war a nekk. école lañ bokk rek di récréation bi moo ñu boole rek. mais su bis ba yàlla daa def dama war a bëri moom te dañuy bëri incha allahu rabbi loolu day wax lu ko neex parce que man huit combat la am man bëgg bëgg journée Baba Diaw neex sax moo doon ma bëri ak Jacob Baldé mais ñëpp dañ ma ne ak Jacob du combat mais bëgg bëree te man bëgguma lu am dama bëgg di bëri sax morom loolu ma dugal si Jacob Baldé mais palmarès sax booloo wax dëgg yàlla ah loolu moom la concerné te ñëwul bëri Ibamar ñu dëgg combat am nga daw muy waxu récréation mënoon bëri allahu rabbi moom na taxaw rek na taxaw dëggal boppam bu mu daw bu mu nax ndax man moom xalaatuma ma arrière al man prib maa ngi kaw dama koy teel a wax prib maa ngi ca kaw damay xeex ak moom bëreeg moom daw man ñaar combat laa bëri yow seeraa nga samay combat ñaari combat laa bëri daw non loolu bokk samay affaire nag wax dëgg yàlla loolu day neex billaay jàmbaar la moom moom jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar day neex voilà parce que ñaari attaquant la depuis daaw ba léegi ñu entraîné du combat bi décembre ñu continué affaire bi laa moom ñu chaque jour dañuy entraînement saison tëj ñàkk man Zil Balde sam papa Ama Balde sam papa ak Paate ñoom Demba. Mhm. waaw doomu mbër mais nañu liggéey rek loolu amul solo moom ay yoon yu jiite loolu amul doomu mbër rek surtout mbër loolu amul dëggal suñu bopp rek waaw loolu deuxième la. moom la moom la concerné man daal en tout cas daal xam naa ñaari côté yu ma juddoo yëpp mbër leen sama yaay papa maama mbër la sama papa papa mbër la waaw treize mbir sama maam la. man du ma moytu si mbër na wax dëgg yàlla loo ma moytu si Seko du ma moytu benn mbër làmb la rek waaw. war a jëw fël bonde waaw fël bonde waaw <laughs> si loo gaaw bu bees la waa mafia sil bi ñoo ko génnee mhm. waaw ful bonde bi il faut mu laal ko waaw. non sa huit combat mu bëree ñoo ma sut ñoo ma ëpp te teewlu na mel ni dafa daal loolu deuxième lépp ma nekkee xale bi léegi maa ngi kontaan <laughs> loolu taamu nañ ko. ah koy noonu rek ah man bu nekkoon seen bundu kër sax damay bëri wóor na yàlla bilaay walaay barki sëriñ maam damay man dam naa bëri naa mbabat fu nekk loolu day dara Pikine ak Géejawaay loolu dara Macky Sall stade bi ñëpp la ko tabaxal du Pikine du Géejawaay du Parcelles kenn moomu ko liggéey moo fi am ndam mais amul ko moom li ay milliards lay jar ay milliards waaw waaw di si woo waa Pikine ñëpp dox rek dox yegg muy sox waaw di ko ñaanal moom tamit mu am ndam rek lépp des Pikine daal incha allahu rabi incha allahu rabi loolu la ñaan waaw di woo waa Pikine yëpp waa cosaan waa cité police bi ma dëkk Gelewaar Zeng ñëpp daal maa ngi woo waa Pikine ñëpp su ma limee jum damay woo waa Pikine rek ñu mobiliser wu xam ne stade bi waaw ñun ñoo ko mën a taaral te ay doomu Pikine na siy bëre waaw di si woo ñëpp bàyyiwuma kenn di gërëm sama ñaari xarit nag ku si mel ni Sidi Pape te maa ngi leen di gërëm di gërëm ñi ma àndal tamit ñi ma àndal bu baax su mel ni Boy Balde maa ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp daal. côté mobilisation maa ngi woo waa Médina Derklé Cité Marine xaar yàlla Grand Yoff waa Fass waa Jëppal waa Liberté 4 di woo ku si mel ne Ousmane Sy DG Port ay ñoom maa leen woo ko waa di woo autorité yëpp ñoom Ngom waaw di sant gaa yëpp Derklé bi yëpp na gaa yi génn ma defaral boy bagage ragaloon ñëwul quoi rang muy gaaw ah.